Laissez-nous travailler. Nous voulons travailler. Laissez-nous travailler. dañoo sonn dañuy yor ay jamono dañoo sonn kenn c'est pas du tout normal c'est trop te pourtant secteur bi yaa ngi liggéey sonn ko dañoo sonn on est fatigué trop c'est trop trop c'est trop ben pas la en avant bo xamni dialogue la ñu gis ni ñom comprendre nañ ñu té comprendre nañ enjeu man xam nga aussi li man duma ma médecin ñu nekk ñu fi pour di diirante ak ñoom mbagg wala di jàmmaarloo mais mais suñuy droit lañuy ñuy ñoom seen bopp suñuy droit ànduñu ci tey li ñu dal ñoom xam naa ne ils sont sensibles motax ñu ñu ñu autorisé en ce moment voilà tey euh, moom itam en tant qu'artiste day na pourquoi mais ñom ñi nga xamante ne dal ñom ñoy saytu loolu oh, ñoom na ndox mais li ñu intéressé moom mooy bàyyi la bàyyi la nga def sa yëf c' parce que am na lu ñuy pare et ñu ngi leen di xaar leen déglu ñoom en retour lan lañ jot waxtaan entre ñoom pour teg ko suñu loxo

protocole il existe voilà il y a quelques mois nous permettre donc voilà on est responsable il faut qu'on nous appelle à la table de négociation Nous nous clash mais aussi il ne faut pas nous pousser à bout On euh, communauté ne stigmatiser pas voilà pourquoi gars est-ce que culture de la culture le ministre de la culture ñu ngi waxtaan ministre de l'intérieur... Les ñu on passe à la déclaration s'il vous plaît. les journalistes s'il vous plaît. voilà ministre de la santé ñu ngi waxtaan ak mais à un moment il y a eu une rupture de dialogue. Mhm. loolu moo tax nga gis tey ñu taxaw. il faut pas que ñu dialogue d'accord sinon ñun tamit on peut rompre le dialogue. d'accord mais aujourd'hui on est assez responsable. Mhm. on va aller à une discussion sévère. Mhm. mais est-ce que commencé woon. s'il te plaît nan nga le fait que ah. état bi. Euh, ah, bañoon euh, ngeen def. suñu ay doomu ndey la ñun ñun xoolal man tey teewal naa. ah loolu mooy ñoom ñoo yor loi bi ñoom ñooy décider. teewal naa am nañ doole boobu. on est là pour notre loolu laa ko gisee waaw. Ah. la maa ngi lay woo. bàyyi ñu euh, si tapale yërmande mooy lépp ci daara dunia bàyyi ñu si tapale ñu. bon parce que xëy na man pour ñun peut-être que ñoom dañoo réfléchiraat xam ne ñun li ñuy def dara grave aussi que tojuñu.

ñu ne leen wa lutax tax ñu liggé ñu ne parce que waro leen liggé ndax mbass bi ñu ne mais ñun ñi ngi xex mbass bi depuis le début té on est assez responsable on est assez responsable pour bañ euh, euh, pour pour mettre les gens en danger duñ ko def fu donne jouer personnes on est prêt à jouer euh, avec 30 euh, personnes 49 000 personnes il y 300 personnes ñu respecter mesures barrières distanciation tout ni utiliser ça ay thermoflash non pourtant ñom ñi ngi def leen neex ñi soirée pendant interdiction bi avons ay musiciens ñu jouer leen ñom ñi ngi def ay ay mariage c'est bondé de nit ñom ñi ngi def ay photo taxaw pour kenn takkul masque sarax léegi ñun ñooy bête noire bi quoi wala ñooy agneau du sacrifice bi ñun def yow ñu autorité xeexuñu contre gouvernement xeexuñu contre ministre de l'intérieur dañuy xeex pour suñu bakkan pour suñu dignité pour suñu liggéey. ñoom joxuñu ñu liggéey ñun ñoo créé suñu liggéey ñu neen doo leen liggéey lu tax doo liggéey ñu ne parce que ñun suñu liggéey mooy ñu tere leen yéen ngeen liggéey noonu lañ ko gisee. ban cri euh, dañu ñëw fii tey di marche pour wax nguuru Sénégal ak ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa réew ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk aussi culture réew mi ñu bàyyi ñu xel parce que ñun kat aar la ñu am ci la ñuy yëngu ci la ñuy teral suñu njaboot ci la ñuy fay ñun tamit li nga xam ne mooy suñu dignité donc euh, ñuy ñaan ñëpp ñu jàppale ñu ci li nga xam ne moom la ñu nekk mooy culture te loolu nuñ ko mën a defee ñaanuñu alal ñaanuñu dara dañu bëgg rek ñu ubbil ñu bunt

réaction du président de la République comme c'est le président de tous les Sénégalais et le protecteur des armes aussi et des lettres. donc on à vivre avec la maladie très rapidement nous Nous sommes euh, pour nous avancer quoi parce que dans <laughs> le gagner ce dundu légalement acte dignité c'est important.